ab kuréel bu am solo si Mbàkke ñëw ngir jàpp si wàllu wér yaram bi ONG bi nu jàpp ni bokk na si li muy yëngu si wàll wii ñëw na nag si dëkk bi ngir jàppale population bi rawat na ñi nga xamante ni dañoo am feebaru bët mu doon ay consultation yu gratuite yootul dul fay dara mbooloo mi yépp ñëw nag fi nga xamante ni mooy centre de santé bu Mbàkke si njiitalu Birahim Diagne moom mi teewal ONG bi. waaw euh, ONG bi depuis at a ngi nii maa ngi doon sàkk pour ñu defee ko fu demee ne Mbàkke parce que gis nañ ne fii amul euh, unité buy faj wàllum bët donc ren lañ ko dogal ñu gis ku mel ne docteur Bachir bi nekk euh, Fawzeyni ak équipe donc depuis démb alxemes ñi ngi fii ci centre de santé bu Mbacké di dépister euh, tey ak démb ak tey donc suba ak ginnaaw suba dañuy jublu ci opérer ñi nga xam ne dañu am cataracte te duñu fay dara. ay spécialistes yu seen xam-xam màccu si wàll wii ñëw nag ngir saytu. mbir mi jàpp ne kat askan wi ñëw nañu ak doole waaye nag laataa loolu dellu si nañu si feebar bi nga xamante ni mooy wàllu feebaru bët ni mu deme si diwaan bii. waaw tey nag ñu ngi fii ci hôpitalu Mbacke bi pour xool bëtu askan wi yëpp pour xool génne leen li li ñuy wax cataracte ndax suba ak ginnaaw suba dañ fa war a opérer ay cataracte gratuitement léegi nag moo tax nag démb ak tey ñu woote woo population bi ñu génn pour ñu xool leen seen bët yi pour xool ñi ci am cataracte ñu ñu ñu ñu ñu bind leen pour suba ñu opéré leen te duñ fay dara waaw feebar bi nag da cee wasaaroo bari na fi lool ndax bu ñu xoolee Mbàkke lu toll ni Mbàkke amul sax bërëb bu ñu faje bët loolu loolu tamit plaidoyer la boo xam ne ñu ngi koy wax population yi di wax ni lu toll ni Mbàkke amul fu ñu faje bët nit ñi tamit bu amee cataracte daanaka euh, da ngay dem ba Touba pour faje ko beneen bi mooy fii tamit nit ñi daanaka zone rurale la amuñu lu ñu fayee ñu bëri cataracte yi euh, amuñu lu lu luñ fajoo dañ su ko xamante ne day am cataracte ci ñaari bët yëpp toog lu man ñaari at amul lu mu ko faje tey nag bu ñu amee ONG bu mel nii ñëw fayal ñëpp waaw ne moom ku am cataracte boo ñëwee dina la ko opéré doo fay dara garab bi sax moo koy jënd kii la ko may la ko loolu tamit ñun tamit ñi ngi koy rafetlu lu baax daal. waaw bi ma ñëwee nag waa ji seet na ma ba dafa bindal benn tuufaay ne ma da bàyyi fii un mois wala bu ñu woote waat nga ñëwaat. waaw baax na moom baax na ñu ngi jàppale gars yi bu baax wax yàlla waaw sama xel mi ngi naa dem ci hôpital a am lu mel nii sax ñett fan yi ñu fi am si wàllu consultation am na sax opération te doo fay dara ñu jàpp ONG bu nu mel taxawaayam kenn dootul ko na table yi Birahim Diagne nii lu nu mel dasee am ay partenaires yu ko si dimbali rawat na ki nga xamante ni mooy njiitu centre de santé bi si Mbàkke donc ñu ngi remercier docteur Bachir ak équipe am même ñun ñi sax ñoom ñoo ñu fiy njëkk donc euh, boo waree kii di liggéeyandoog ay nit man maa ngi dëkk Mbacke mais balaa ma ñëw naa fekk docteur ñëw ba commencé moo équipe am ñuy remercier aussi le médecin chef Mbacke et Mbacke nekku fi mais mel na ne teew na. art bu ni mel tax na nag feebaru bët si diwaan bi dina wàññeeku ndaxte ginnaaw bi communiqué bi jàllee rek population bi yëpp danoo maase ñëw si barab bii ngir ñu saytu leen mu mel ni satisfaction am na si ndaxte ONG bi lim si jublu woon gis na ko si si ñaari fan yi te sax nag mbir yi jeexagul.